similaire ci kaw tali bëri na terminé yéene dama ne la diggante 2017 ak 2020 bi lée waaw lu tolloo ñetti junni ci ay doomu aadama day ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci kaw tali bi maa la wax bu ñu sukkandikoo ci njiital division sécurité routière Ousmane Ly laaste moo taxit nguur ga day bëgg naa génne yat ba nag bëgg naa dakal lii ci kaw tali bi laa la wax réew mi quotidien ne waaye xoolal mbir mu doy waar mi xam ne moo am démb ca tribunal ba chambre criminelle bu Ndakaaru waaw dama ne la président Chine Ndiaye Ndiaye waaw moo jam benn police ñetti jam-jamu paaka laa la wax laay laay la la MD Ndiaye moomee bañ ko laajee démb ca tribunal ba day waaw dane président Macky Sall la bëggoon a rey allahu akbar allahu akbar allahu akbar <laughs> ay ndar ràññi lii lan la MD Ndiaye ne dama ne président Macky Sall laa bëggoon a assassiné rey ko waaw waa parce que nag li ma dund ni la sénégalais ñoo ma ko yóbbee eh way samba bitim réew laa nekkoon fu ma wut liggéey ñu ne ma du fii ba ginnaaw ga sax nag lañ ma rapatrier indiwaat ma ci ndakaaru njaay jël joob gi lée waaye kii wér na yéene kaa gi ne déedéet te yàlla te kat jamono jooje waaw Le Soleil yéene kaay nee ndaje mi nga xam ne doon nañ ko amal ci daalu Paris gële africain sommet ba waaw ay diggee daal la ñu fa jëlee de ay diggee promesse vaccination financement en Afrique yi ak yokkute mi capari googee waaw dem nañ ba ñëw waxtaane wuñu dara lu jëm ci wàllum bor bi nga xam ne réew Afrique kon am nañu ko benn ñaar waxtaane wuñ fa dara lu jëm ci wàllum franc CFA bii ak coow lu bari léegi président France waxam ju bari ji tentamment rëgg geeg yooyee yëpp waaw te ñoom ñooñu nasaraan ñoo la gën a xam ne Afrique yi li ko bloqué bokk na ci bor yu bari réew mi quotidien ne waaye lan mooy ndayuk sax ñuy wax naa ne Afrique yi lée ñu koy defee pare la France yéene kaa gi ne waaye na gis nga bu ko benn réewum Afrique organisé woon waaw njiitu réew africain yi du ñu dem ñàkk fayda complexe kuwee di laajal Sénégal gi la fi organisé forum sur la paix et la sécurité dama njiitu réew Afrique yi dañu koo boycotté laa la wax la ilaha illallah tey Afrique gi la le quotidien yéene kaa ne xoolal ma garab yi nga xam ne kon nañu koy gor trafic bois bi la Casamance waaw frontière u Gambie gële bu fa almet jegee rek mu a askan wa ca boppam kon bloqué nañu benn camion boo xam ne daa fees dell ak ay garab yu ñu gor armée ba woo nañ leen renfort Palestine ak Israël a ngay woote renfort box fam li ne waa Jamra day waaw sànni nañu xeer de Mame Matar Gueye ak ñamoo àndal sànni nañu ay xeeru seytaane ci kaw kon Israël laa la wax dëgg la te danañu organiser nag manifestation ajuma ji di ñëw ngir naqarlu lee Israël di def kon ci kaw Palestine di rey ay xale yu ndaw Mame Matar Gueye ak ñamoo àndal day nee nañu la leen naqar wu ñàkk fayda dëgërul daa te nguuru Sénégal gi def mel ni ku naan bàyyi leen xeex bi Israël Palestine bàyyi leen xeex bi ca jamono jooje l'observateur nee xeex yi nga xam ne moo fi amoonte ay doomu aadama daal di fii dee émédi la ak commission biñ ne dañu ko fii taxawal day ngir xool nag ñan ñoo indi coow loolee waaw point mort mbir ma enquête ba demul di laa la wax bougéwul libération yi nekkaa ne en tout cas njiital Pastef ki day waaw dañu ko invité ca Togo Lomé gale états généraux yi éco ba xaalis fii remplacé CFA Ousmane Sonko kon mu tukki waaye procureur dane Ousmane Sonko du bouger un yota eh way Samba da koo bloqué ci Ndakaaru njaajël Joob de Ousmane Sonko tere nañ ko mu tukki laa la wax critique yéene kaay ne dama ne procureur ci boppam daa ubbiwul sax lettre bi avocat wu Ousmane Sonko bind laa la wax yéene kaay gi ne demoo ni ñoo ñee nga ñoom ñoo dee ca manifestation yi ca bi ñoo day danañ leen ñaanal kon samedi ji di ñëw waa M2D ñooy def lu ni mel dekki waa ca dëkk Ousmane Sonko laas te gis nga ca ma ngay làmb boppam nag xam gaa ñaa ngi koy bëgg ba léegi ni la tournée économique lay defal day 28 ba la 31 mai bii ci dëkku kaw waaw tribune yéene kaa diggante moom président Macky Sall day waa APR ak réew bi Idrissa Seck mburoog soow ah gaa ñaa ngi waajal loo xam ni boole seen parti def un grand parti yaa jum wala maa jum maa la wax loolu de moom kay APR fi nekk ni le won naa su réew mi la bëgg gaa yi seey biir allahu akbar te loolee du ay comité directeur rek ay bureau nga xam ni kon ñoo nekk ca kaw Macky Sall ak Idrissa Seck waaye nag ah. jaar suñu affaire nekk ca Thiès waaw nee nañ mburoog soow boobee d'accord ci tey te d'accord ci ëllëg laa la wax te bu ko jaree nag ñoom waa aar suñu affaire danañu dem ci élection locale yi ñoom ci ndung élection locale yooyu source a nee na bu ko seli day ah day songo ay da sow jaawara de maar la ko wax kay nag boo bëggee dégg dëgg mu wala coalition bi ci tas la jëm laa la wax te Macky Sall na gis nga ay topp leen ci ginnaaw di yoog boo sàgganee waaw nee xatul de bugaa daa mere Alioune Sall de lool te Alioune Sall tamit day ma ngay dégg ne opposition ba nekk sa géejawaay googu ña ngay waajal dañuy dal ci kawam de Sud Quotidien presse ak pouvoir ay journaliste a ngi ni lé dañuy dem ci élection locale ya de maa waaye du fi lu bees ah ngi nii ak Alioune Sall si yàlla Moctar Kébé waaye bi yoon tamit day am na journaliste yoo xam ne jug nañu ne danañ bokk ca élection locale yooyee li ma Ahmed Aïdara Malé de Tamba ak Bassirou Fofana mi lé nekkoon populaire déclaré na candidat am day ci réseaux sociaux yi ne élection locale di ñëw day waaw dafa am ay candidat yu bees activiste yeeg société civile beeg web actif yeeg waaye nag est-ce que amul risque sur côté yéene en tout cas waa APR day waaw léegi daal ku leen ko sambañ rek ñu saañ la ko laa la wax waaye waa LD debout ci Vox Populi nee nañu cadre APR yooyee taxawuñ taxawaayo cadre seen juróom-ñetti at ilee wane na ni doo leen tus yàq ngeen nguur gi yàq réew ndool gi tey la gën a yokk nit ñi wóolootuñ leen yéen waa APR kon yéen seeni cadre amuñ dara luñ wax professeur Abdoulaye Bathily laa la wax waaye Amina Sakho day ca parcelle ci Vox Populi yekk na lu mel ni Amar day ci évidence nee na président Macky Sall waaw ña leen di ca kaw la googe nañ ko xool de direct news de dagg bi nga xam ne ñu ngi koy daggaat rifis ku noone waaw baate ngaay indi na ci ay jubbanti de parce njaay jaate nee xam nga seetlu gu njëkk gi nga xam ni kon moom la ñu njëkk a def mooy mbirum cuune la médiocre nañu bindee rapport présentation ba ca booba moom baaxul laa la wax xëj na la indi lii mooy wàllum yàkkamteeg patam-patamee dégg nga loolu de dégg nga loolu de <laughs> waaye nag nguur gi see ak lu ñu yàkkamti yàkkamti yàkkamti yàkkamti yàkkamti ñin